jërë ngeen jëf ci ànd bi dal leen jàmm ci xibaar yi fii ci Alfayda FM 90 point 1 kàddu gi di bàyyeekoo diwaanu Medina Baye immeuble imam Assane Cissé studio Ali Momar Lo xibaar yi li ci gën a fës li ci gën fës bokk na ci xiiroo be ngaaye bi nga xam ni moo am ginnaaw bi nga xam ni mooy diwaan bu Louga waa Passy tamit li ni mel ba tax na kuréel gi nga xam ni mu ëmb ñuy liggéey ci wàllum wér gu yaram ñoom moom la àdduna ci bis bi ni mel dañ ci teewlu reportage nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Diagne ndaw ñi nga xam ne ñoo mi nga xam ne mooy maire commune bu Kaolack naam sax li nga xam ne mooy développement kese moo ko ñor ba tax na ñu dégg yenn kàddu yoo xam ne ñu koy teg ci ndodam ñoom moom lay àddunañ ci li ni mel ak reportage ki nga xam ne mooy Cheikh Babacar Dieng violence yi ñuy faral di gis ci l'école yi ci élèves yi lee loolu doon loo xam ni askan bi dañ koy naqaru ba tax na seen mbokki élèves yi lee ñoom moom daañ ci àddu ci micro ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Diagne bu loolu yëpp yembee xibaaru bitim la dañ ko teewlu ak ki nga xam ne mooy Cheikh Babacar Dieng tàggat yaram ak ki nga xam ne mooy Serigne Moussa Kane yéeni mu nar a bul di tari xibaar mbokkee xarit bu ngeen tàxiloo ñu dem ci yaatal gi Codou Seck Kenemé ci li nga xam ne mooy xarale gi mbokk yi xarit li mu leen ko junjëwoon ci li nga xam ne mooy bopp xibaar yi xiiroo ngaaya bi nga xam ne mu ngi am fi ne nii eh, eh, na collectif bi nga xam ne mu ëmb ñi liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ñu moom lay amoon nañ ab ndaje ginnaaw ci loolu ñu teewlu ki nga xam ne mooy reportage kii di Cheikh Tidiane Ndiaye ni mu amee woon région bu Louga ñoom ñaar ñëpp li ñuy ñaawlu mooy doxalinu ñenn ci fajkat yi ci biir barabu fajukaay yi jamono ji tembe tembe nag collectif bi takkee comité de développement sanitaire yi nekk ci diwaanu Kaolack génn ci pat pataaral gi ñu nekkoon ñoom ñi nga xamante ne ñoo dox ci diggante askan wi ak fajkat yooye ci biir hôpital yi di woote jàmm Sadaga Diba di secrétaire général bi fii ci diwaanu Kaolack. secteur boo dem da nga fay fekk ñenn ñoo xam ne ñoom ñooy ñebbe ci benn cin bi loolu du ci ñàkk mais ci biir loolu généraliser soo a généraliser parce damay oote population bi nañ gën dal nañ gën delloo mbir mi ci yàlla te xam ne ne mbir mi nekkul loo xam ne fitna moo ci waram du politique du dara ñii dog-dog la woon nañ leen delloo si waat xel yi àndandoo xam ne mbir mi ñoo ko moom mbir mi suñu la te Sénégal la ñu ne nag jamono ji boo demee ci barabu fajukaay yi nii mooy mandarga yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fajkat yi. waaw actuellement xam nga dañoo blessé wu. soo xoolee ne confiance entre ñoom ak population bi commencé naa ñàkk soo wóolonte bi mooy maanaam ñoo ñu ragal léegi population bi yegg seen ko ba day waral sax yenn yu ñu waroon di def sa dootuñ ko def duñ jël benn risque ci seen métier te loolu baaxul. kuréel yu ni mel di woo nguuru Sénégal mu gën a aar barabu fajukaay yu ni mel Sadaga Diba secrétaire général bi woo ci tamit bokk moomeel bu diwaanu Kaolack. waroon woon toog ba lii daal sax ñu war a renforcer sécurité bi poste de santé yi da ngay gis poste de santé yi am benn gardien boo xam ne am na plus de cinquante ans ou ans kan la ñuy garder soo seetee amuñ moyen ñu leen ko état moo ko waroon recruter recruter tuñu leen mairie aussi ñu war a jël ay gardiens yi war a ñëw ci biir poste de santé yi fii ci lu jëmee ne domaine Kaolack monsieur Serigne Mboup mu bàyyi xel ci yooyu. xiiroog ngaayoo kàddu yu ñagas ci rajo yeeg télé yi naka noonu tamit ci réseaux sociaux yi diggante askan wi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fajkat yi càggante la ñuy ñaawlu ci barab yooyee jamono ji tembe tembe nag kuréel gi ñu mel nga xamante ne moo nekk ci diggante ñaari pàcc yëpp woote ne jàmm waaye tamit ñuy xamle ne dinañ ci amal ndaje yu yaato yaatu mu ñeel ay kàddu yeete. négligence bi nga xam ne dañ koy faral di gis ci li nga xam mooy l'hôpital du lenn lu dul ñàkkum formation professionnelle ba tax na kii di secrétaire général exécutif bu collectif comité de développement sanitaire moom moomu àdduna ci ci micro ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Tidiane Diagne Sadaka Diba la ñuy teewlu. lu ñuy wax plateau technique ci santé ñëpp xam nañ ne Sénégal formation yu fi nekk anam ne am na ay inconvénients nag yu bëree bëri commençant par les écoles de formation yu fi am ci biir réew mi bëri na jëlal gox bu mel ne Kaolack nga bëgg fay tibbi plus de six écoles de formation mun naa citer seen nom lu mel ne ñun dañuy tàggat ay techniciens ñëpp dañuy bëgg a indi ay techniciens yoo xam ne loolu dafay indi sooke kon donc soo gisee rek nu mbir mi di gën bëree rek mu am ay yenn cooke cooke yoo xam ne war na fa mën a am te sooxe yooyu noonu du gouvernement bi la comme lu am ci mbirum a a des yoo xam ne dañuy manque déontologie législation maîtrise bi dafay manqué problème bi du ci ñoom lépp dañ ko war a delloo ci gouvernement bi aussi ñu xool saytuwaat nan la ñuy joxee des licences ci école de formation yi Kaolack rek laa la tuddal ne la yaa six écoles donc y'a problème te soo seetloo ci biir structure de santé bi mbir mi doyul nombre bu doyul formation bi des na dafa war a am formation boo xam ne day continuer waruñ leen bàyyi rek ñu def nangam tekki ñu ciy am diplôme dañuy néew lan moo waral loolu conséquences dañ ko war a remonter ba ci kaw a kaw a kaw a kaw wax sàggante bi ak yenn yoo xam ne dañ ko am sécurité bu ñu war a def war nañ sécuriser santé comme ni ñu koy defee ci éducation képp ku ci war munti dugg que ça soit ASC que ça soit ci war nañ la mun a tàggat tàggat boobu nag dañ ko war a gën a saytu ni ñu koy defee parce que gis koo xam ne moo ñu woon ci politique suba nga gis ko ci santé muy faj yaa ko tudd mooy yaa problème kon recrutement bi yaa problème lu may wax ci gouvernement bi damay wax nañ ko gën a xoolaat nañ ko gën a saytu nan la ñuy sélectionné parce que dafa nekk domaine bu sensible. yéen a ngi yi ci Alfayda 90 point 1 junjoon naa leen ci bopp xibaar yi ndaw ñi nga xam ñoo ànd ak sëriñ bu di ko jàppal tànk ñoom moom le ginnaaw kàddu yi nga xam ne askan bi dañ koy teg ci ndodd seen mentor kii di sëriñ bopp teewul lu ñoom dañuy jàppal tànk ki nga xam ne mooy sëriñ boobu di ko jàppale ci wàllum développement bi nga xam ne mooy doon bu Kaolack ndàngaan ñu teewlu reportage bi ak Cheikh Babacar Dieng ndaw yi nga xam ne ñoo bokk ci ADK boole si ñu nekk ci biir ànd nawle gune yi dëkk ci Kaolack ñu ne dañoo taxaw te mën a film ngir defante ko ñi nga xam ne dañoo jàpp dañuy xëy susu ba ba ngoon di yàq deru seen njiit nekk maire Kaolack di président Serigne Mboup kàddu yaa ngi génne ci gémmiñu président Baye Dia mi leen jiite. bien sûr damay woo population Kaolack bi surtout nag jeunesse bi nga xam ne nii ñoo nekk sama ginnaaw ma leen di tàllal loxo ne leen bu ñu yàqam ndax le maire dafa gu fi lu dul deux mois wala moo def benn acte foog mu redressé mairie bi ba nit ñi xam fi ñu féetee donc ñun ñëpp ñu ngi toog nañu futteeko woon di ko jàppale tey lañ gën a futteeku ngir taxaw ci te xam naa ne du fàtte jeunesse bi ndax xam na ne jeunesse bi force am def ay yëngu-yëngu yoo xam ne dañ doon dimbali ñi seen doole néew ak ñu nekk ci xat-xat ñu ne lii président Serigne Boum moo leen ko yàgg di sant jamonoy koor gi ci lañ nekk biñ jullee it lii la ñuy continuer effectivement ñu ngi ci yeneen social xëy na bii da cee gën a siiw rek mais fan yee passé demoon nañ pépinière Lamine Coulibaly dafa ay don demoon nañ ci ay daare aussi dafa ay don mais nekkutoon lu ñu médiatiser mais comme lii attaque yi dafa bëri woon day laaj ñu leeral wan waa kaw la ne ko jeunesse ADK kan wala kan mooy def lan ba coow ne coow bay ci biir Saloum gune yi ñu ne dara waralu ko lu dul xam ngeen xam ne président Serigne Boubou moo leen man ci jongante yi ñu dégmal bu ngeen xoolee attaques yi ñu ngi commencé depuis Serigne Dane day dem élection législative mais leer na ma bu ko waxutoon doo dégg benn attaque mais ñoom xam nañ ne président Serigne menace la ci ñoom ndax électorat Kaolack bii fi di fi yeewoo mu neex ci force yi métti yi moo xam benn bañ bokk di ci biir coalition ànd nawle àndi liggéey ba tey jilee guerre de positionnement moo fa am ku ci nekk taxaw na ne dafa bëgg a nekk député te de liste départementale bi it ginnaaw Ousmane Faty Niass mu ko laaj am na ñeneen ñu koy xëccoo ndaw yi it ne seen président bii di Baye Dia lañ bëgg mu doon député ci assemblée nationale Baye Dia ci boppam dëggal ko. non xaajaloo mu ni ci am man citoyen la te dama bokk ci mouvement bu ñu structuré ma jiite jeunes am naa jamono ji nag mu mel ni ànd nawle ànd liggéey pëcc xoo gaa euh, na li ni mel wante sëriñ bu moom li ko soxal du leen lu du développement euh, ba tax euh, de ABK moom la ñuy teewlu ci micro ki nga xam ni mooy Cheikh Babacar Dieng. waa coow li ñu comprendre la rek fan yii passé dégg nga personnel bi ci boppam ñoom nee nañ xam la woon moo tax waaye jubóo nañ léegi jubóo googu kay nañ yàlla mu continuer na rek te xam ne président Serigne bu moom liggéey Kaolack moo ko tax jóg liggéey dëkk bi moo ko tax jóg kon nag personnel bi fa nekk muy Abdou Ndiaye ak ñi mu jiite nañ ko jàppale te xam ne bu amee yàgg-yàgg ci taabul lay mujj toog nañ ci taabul waxtaan dem nañ ba xam ne nit waru tëdd këram di fayeku loolu moom amul fenn ci àdduna bi ànd na ñu ngi continuer di liggéey continuer di juboo kon dañuy ñaan juboo googu suñu borom yeggali ba Kaolack mën ci toppuñ politique rek di xaar lu ñu def dañoo amoon mission nag doxal ko fal suñ président mu dem toog li ñu war mooy ñu dem toog di ko seetaan di ko surveiller yi mu gañee noonu ñu paree face à face ak ñi ko ayaat defuñ mu war mooy projet na ko waa Kaolack lépp

jox la deux mille te ci mbir moomu leen nañu des ba tey mu mel ni euh, ki nga xam ne mooy sëriñ bu moom pare na pour dem ci li nga xam mooy élection législative yi ginnaaw bi mu génne ci li nga xam ne mooy élection locale yi lee nar ci ànd ak xale yi nga xam ne ñoo koy jàppal tànk fii ci diwaan bu Kaolack ñu teewle ki nga xam ne mooy Ousseynou Simakha doon porte parole mouvement sàmm Kaolack ci micro ki nga xam ne mooy Cheikh Babacar Dieng wax ci turu jeune kaolackois yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñi bokk ci mouvement ànd nawle société civile tout le monde di wax euh, pour développement commune Kaolack di lancer benn message pour les politiciens yi nga xam ne ñoo jug ngir yàq ak tilimal deru suñu maire Serigne bu bi nga xam ne ñun population bi ñoo ko tànn fal ko di ko jaarale si yenn organe de presse yi ngir mën a tilimal deram te ñu ngi seetlu depuis quelque temps ay articles yu bëri ñuy bind ci ay presse di ko jàllale jikko doomu aadama bu baax war nañ ko ci gis moo tax attaques yooyu ak acharnement yooyu ñuy def ci suñuy maire ñun ñu jug taxaw ne lii dana arrêté te lum jar jaral nañu ko dinañ taxaw jàkkaarloo les politiciens yi nga xam ne ñoo jug di wax ak suñu maire di yàq deram ak organe de presse yi ci àndal ngir yàq deram ñun ñoo am suñu espoir jël suñuy carte votal ko Serigne Mboup du lum ñu defal du lum ñu may mais ñun Kaolack waaye ñoo xool pendant des années xam ne Kaolack ñu ko mës a diriger ñoo ko mës a diriger changement mosul am ñu gis koo xam ne xam la personne idéale pour que changement mën a am ci Kaolack ñu jël ko votel ko massivement te loolu nag ñu def votel ko ñun jël suñuy carte duñ seetaan mukk pour intérêt benn parti wala intérêt benn nit tax ñu koy yàq xam ngeen leen ñu nit xam nañ leen moo tax tey ndawu Kaolack yëpp jub nañ taxaw ànd def benn bloc pour jeexal li nga xam ne tey jii moom la politiciens yi jug ngir xajamal liggéey bi nga xam ne suñu maire Serigne Mboup moom la nekk di liggéey ci dëkk bi te nañ xam ne tey balaa ñuy jaar ci foog ñu jaar ci ñun taxaw ñun doo yegg ci Serigne Mboup ànd sàmm Kaolack nag taxaw nañ jël suñu doole ak lu ñu am yépp pour taxaw ci ginnaaw Serigne Mboup jàppale ko ànd ak moom pour que mandat bi tey ñu ko fal ñun Kaolack waaye mu mën ko réussir si jàmm. wax ci beneen mbir ci wàllum jàng jàngale ginnaaw ci ay weer yoo xam ne lii di état bu Sénégal dafa euh, wàññi woon li nga xam ne mooy salaire ru ñii di jàngalekat yi le mbir moo doon loo xam ne dafa métti lool kuréel gii di SELS ba tax na kii di Amadou Diédhiou moom moom lay àdduna ci li ci micro ki nga xam ne mooy Mouhamed Sagna ci peyooru jàngalekat yi ab coppite maanaam nguuru Sénégal dafa jël décision dafa jël dogal ni dafay dagg salaire jàngalekat yi parce que dem nañu grève ñuy assumer loolu ñun en tant que syndicat ñu koy assumer mais di ne ñu ngi woo nguur gi que ñu xam ni fonction salaire salaire boo koy copp looy munta laal ci salaire lu ne dafay lalu ci dëgg dafay lalu ci ay anam yu leer ñu leen di fàttali ni salaire soo koy dagg ci état de grève bi chef de service chef d'établissement wala directeur d'école yónnee nguur gi mel na ni seetluwuñu si loolu lu ñu gis seetlu koy dénoncé mooy dafa mel ni nguuru Sénégal dafa jël dogal di dagg salaire nu mu ko neexee di dagg fu mu ko neexee gannaaw bu ñu ko naxarloo maa ngi woo syndicat d'enseignants yu bokk G7 jot na ñu jóg parce que bu ñu moyul lambaay dina ñaaw ñu jóg pour ñetti mbir benn ñu mën a dakkal yooyu ponction ñu mën a xam yan anam lañ koy defee lu tax ñu koy def ba tey beneen bi boo seetloo nguuru Sénégal dafa doggoon sa fontoon si ñoom syndicat d'enseignants yi ni dañuy wéyal waxtaan ci li ñu tuddee situation enseignant décisionnaire defoon waxtaan bu njëkk le mars ñu waroon ci amaat benn waxtaan le 17 mars boobu ba léegi furaas beneen bi mooy ñetteel bi lan moo waral yàqit ak at yee passé ñu doon jël ñaari junni maanaam 2500 jàngalekat ñu recruté ko ci fonction publique ñu recruté ko ci jàngalekat yi parce que jàngalekat manqué na ci biir système que ren nguuru Sénégal jóg jël seulement deux cent soixante quinze ci loo xam ne waxtaanee ko ak kenn dama jàpp it ni jot nañu jóg ci li nga xamante ne ñun ñu saytu lal mooy li ci biir protocole d'accord bu février bi passé comité de suivi bi ñu waroon mettre en place bu njëkk ba tey taxawagul lu ci des nan la fexe ñun syndicat d'enseignants yi ba lu ñu signé woon nguur gi ñu mun ko respecté wa illaa suñ ko respecté wul ñun syndicat yi jël suñu responsabilité. ci wàllum njàng jàng lañu des ba tey wante ne mooy diwaan bu Kaolack ñoom moomu la seen mébét lenn kese la euh, ne mooy jàngal jàngale fii ci diwaan bu ne mooy matière scientifique ne mooy matière scientifique yu ci mel ni PC ak li nga xam ne euh, mooy mathématique ki nga xam ne mooy euh, bi yaay si tout foofu indicateur bi dafa évolué bu baax mais ba tey des na lu favorable tamit mooy que taux de scolarisation si côté secondaire maanaam lycée dafa évolué bu baax mais tamit euh, mën nañu ko gën a lu positif tamit mooy que concertation bi am na entre inspection d' académie ak partenaires yi ñoo xam ne API ak syndicat vraiment entre man ak diggante API ak syndicat yi vraiment régulièrement dañuy concerté wu difficulté mooy que côté enseignement scientifique nga léegi dëkk boo xam ne bëgg na développé wu il faut nga miser si la ñu ne enseignement des sciences parce que côté littérature histoire géo français bëri nañu ay cadre dañu ne léegi dañuy basculer même si yeneen yi am nañu solo dañuy commencé basculer pour am ay cadre si domaine bëri ay cadre su ko defee dinañu mën assurer garantie suñu développement bi si côté concours Miss Math Miss Science boo xam ne direction enseignement moyen secondaire dafa organiser chaque année ak olympiade mathématique ak euh, BC yoo xam ne état daf leen créé fii Kaolack am nañu beneen BC mu nekk ñaari BC ak l'INECI l'INECI mooy lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité dina fi am fii Kaffrine sorantewuñu dinañ si profité au lieu ñu toog di constater que après troisième bi du ñu a jóge collège bi dem seconde S ñu constaté ko que du am mais ñun il faut ñu seet lan la ñu mën a def élèves yooyu ñu préparer leen comme ça mu mun nekk loo xam ne ñun ñoo koy calculer ñun ñoo koy programmer que année sangam élèves yu ñu jógee si collège sangam dinañu nekk cent personnes si cent yooyu bëgg nañu mu am au moins trente ñuy dem seconde S. ngir jàppale xale yi lee ci li nga xam ne mu wàllum jàng jàngale rawatina ci euh, li nga xam ni mooy euh, wàllum euh, science wàllum PC ak li nga xam mel ngir kan ñu mën doon ay scientifique yoo xam ne du mucc ayib la ñuy doon fii ci doon bu Kaolack inspecteur Siaka Goudiaye bi la ñuy teewlu war ba tey ci micro noa bi yaay. bu ñu ko defee léegi dañuy def test à partir de seconde lycée ak cinquième collège bu ñu testee élèves yooyu ba pare ñu ñan ñoo xam ne dañoo gën a xarañ ñoo pour être mathématicien pour être scientifique ñooñu dañu leen jox encadrement particulier dañu choisir déjà ay professeur encadreur foofu léegi dañu leen di encadrer ak inspecteurs yu nekk IA mooy secondaire IMC dañu leen jox cours de renforcement cours de soutien pareil tamit rek comme ça élèves yooyu dinañu am niveau bu baax bu ñu nee concours euh, d'excellence nationale bu bu ñu nee par exemple euh, concours général sénégalais bien bu bu ñu nee premier Dakar la jógee ñu ne loolu mooy vraiment suñu xalaat commencé nañu ko choisir nañu quatre collèges pour ren ak ñaar lycée dañuy développer benn plateforme boo xam ne numérique ñu am connexion comme ça si plateforme boobu dañuy am euh, contact entre professeurs yi encadreurs yi ak inspecteur enseignement mooy secondaire ñu nekk IA junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi ginnaaw violence yi nga xam ne kay faral di gis eh, ci yenn ci l'école yi wala tax mën nañu wax na ci élèves yi seen diggante bopp ba tax na bi ñu jot a nemmeeku fan yi ñuy weesu fële ca kaaranga mbir moom doon loo xam ne seen moroom élève dañu ko métti lu baax a baax a baax ba tax na Cheikh Tidiane Diagne am na ñenn ñoo xam ne jot na leen gis foofu ca lycée Valdiodio Ndiaye El Hadj Abdoulaye Niass la ñuy teewlu doon membre bokk ci gouvernement scolaire bu lycée Valdiodio Ndiaye ci micro Cheikh Tidiane Diagne violence bu ñu gis suñu mbokku élève mu xew feneen si kaarang ñaari élèves yoo xam ne dañoo nekkoon di xeex ba affaire bi dem message de sensibilisation sensibiliser suñu mbokk jeunes yi ñoo xam ne violence daan ko gisee feneen mais pas si école yi wala si établissement yi te léegi lu nga gis si yi léegi dafa bari torop léegi nag ñun xamul nag lan moo ko waral parce que parfois dañuy gis entre professeur élève parfois ñu gis élève a parfois ñu gis aussi surveillant ak élève te loolu dafa war dañ parce que tey éducation bu ñu waxee rek dafa war a nekk loo xam ne la a doon mais wootu a

grève ngeen jàpp ne ñu ngi xeex est-ce que am ay conflit seen biir léeg-léeg euh, coow di am ci classe yi ci biir jàng mi mais bu fekkee da ñëw jàng rek ñibbi coow mën bañ am waaw si li ma yaakaar parce que boo xoolee élève élève ma ma gisee ne conflit war na fa mën a am peut-être mën na nekk si biir classe bi comme par exemple nga gis sa morom nga nekk si classe mu dàq laa jàng wala mu raw la wala mu ëpp la niveau maam nga ko teg benn yéen seen ñaari copains yi ñoo dañ jàppante si ñoom ñaari xale jigéen ñoo tax ñu jàppante ba kenn ka rey kenn ki te yaakaar naa loolu dafa garaw jobante gi kon mu ngi am ci école ah man moom def ma ko waaye yaakaar naa mu ngi fi am parce que ñu ngi ko fi gis daal maanaam Serigne Mbacke Faye moom moo beneen élève la fii ci diwaan bu euh, lycée bu Valdiodio Ndiaye moom moo mu ngi naqaru baax a baax li ni mel tamit ba tax na mu ngi wax ni école kat doonul bërëb boo xam ne bërëbu violence lañ fa faral di nemmeeku mu ngi ñaax ñi nga xam ne ñooy waajur yi ñu tàggataat li nga xam ne mooy seen ndaw ñi ñu teewlu ko ci micro ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Ndiaye

coin après tu vois moom bu ñëwee coin lay toog du faale kenn wala buy ñibbi moom kasey ànd su amee problème du ko mën a wax ak kenn te loolu du yoon nit boo ñëwee ci ay nit da ngay jéem a nga ñëwee jéem a ci biir nit ñi ndax loolu moo koy def te tamit ñi mag nañuy dimbale ñu ndaw parce ñoo la ko war a jàngal am ñoo élèves yoo xam ne dañuy am haine dañuy soxor neewul seen moroom élève kase dañuy soxor yi nit loolu neewul ci ci professeurs yi wala ci établissement loolu ca Kaarang arrêté neen ko lan ngeen ci xalaat ci loolu. na yoon daal def liggéeyam na yoon def liggéeyam lu nga war a def na ko def parce que loolu kenn ko def parce xale bi instant yi su ko xojoon mu dee moom instant yi loolu muy wax xam nga du mën wax dara en tout cas daal na yoon def liggéeyam su jaree ñu dóor ko nañ ko dóor bu jaree ñu corriger ko pour bu ëllëgee du ko defaat parce lii su leen ko corriger ëllëg keneen mën na ko defaat te loolu a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda wax ci beneen mbir bokk na ci li nga xam mooy développement bi di commune bu euh, Koubalan askan bi nga xam ne ñooy yeewoo ci euh, biir bërëb ñoom moom lay seen mëbët lenn kese la mooy jàppale ki nga xam ne mooy li nga xam ne mooy wàllum infrastructure maanaam jumtukaay yi nga xam ne askan bi dañ ko ndemee ko dañ ko sol tamit ci bërëb boobu la ñu teewlu ki nga xam ne mooy maire bu euh, commune bu Koubalam di Mamadou Sora ci micro Mohamed Sagna. Ah, la cest à bi ñu ñoo ko village yu nekk acteur de développement tous les ménages économiques dañu yaakaar ne ñoo bokk commune bi ku nekk dafa war a jàpp pour ñu a ko développer ñu dem ci mobilisation en termes de d'acte d'obligation fiscale waxtaan nañu ñoom yëpp comprendre nañu ñoom yëpp dañu content parce que dañu xam ne lu ñuy nekk di yëngal nii comme waxuma yëngal parce que des c'est difficile intérêt population donc bu ñu xam ne intérêt population ñoom yëpp dañu kontaan ci jàpp ci ñun suñu vision bi je crois que ñoom yëpp nañu accompagner pour que projet boobu mun a réussir mu am njëriñ ci ñëpp njëriñ mooy d'abord lutter contre la vulnérabilité la pauvreté globalement nest yoo xam nga ñu ngi ci gox yoo xam ne am na famille yoo xam ne amuñu dara même pour évacuer un malade vers centre hospitalier amuñu moyen yooyu donc ci xaalis boobu ci ñu ko leen mobiliser ba mu dugg ci mairie bi dafay permettre loolu régler day permettre ñu mun a loolu yëpp dafay am njëriñ population donc loolu moo tax loolu lañ leen di war a expliquer ba ñu comprendre ñoom bu ñu comprendre rek niveau bu ñu mënta nekk rek dinañu mën a waxtaan ak seen moroom yi et puis loolu yëpp jëpp jàpp ci boutiquier boo xam ne mu ngi gagné million ci sa territoire et puis dellul dala ci communauté bi voilà entreprise bu ñëw di liggéey fii di am ay milliards dara dellu ko ci peuple même en terme de stationnement dara fay ñu ko mais ñun suñu toppee ba ñu ñu fay ko dañu gën a am moyen pour defar population bi. ci waajtaayu élection législative yi ñu a dëgmal maanaam euh, ay député yoo xam dañu toogal fële ca pencum ndaw réew mi euh, ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh moom bokk ci parti Pastef ginnaaw bi amee ndogal bi ñu mel la foofu ca Bignona moom moo la porté wu na candidat ne day bokk ci li nga xam ne mooy élection législative yi nar dëtmal foofu euh, ñu teewlu ko ci micro ki nga xam ne mooy Mouhamed di yéenee ci la bu neexee yàlla ak euh, yéene bi nga xamante ne xam ngeen ko ci man bëgg naa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk député ci élection yi ñuy dëgmal sama candidature nag wax naa ko sama àndandoo ci wàllum politique ne man it am naa yéene taxawal fii président Ousmane Sonko ci élection législative moo tax may sàkku ñaan si yéen ndax lépp li nga xamante ne am naa ko ci yéene ci wàllum politique ma fexe ba gën a am doole su ko defee ma gën a yittewoo jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel ngeen mun leen jàppale it dëgg la ñu ngi ci xew-xew diine wante nag comme diine ak politik daanaka nit ñi lañuy wax ci nit ñi lañuy dox kon jàpp naa ne kuy def politik ak ñu nekk ci diine bi war nañu léeg-léeg mën a toog mën a xalaatandoo su ko defee ñu mën a mànkoo ba jublu ci saafara jafe-jafe yi nga xamante ne ñun ñëpp ñu koy jànkonteel. wax ci beneen mbir fii ci doon bu Kaolack askan mi nga xam ne ñuy yeewoo fële ca ndàngaan abattoir ñu moomule euh, métti dinañu baax a baax seen euh, tali bi nga xam ne ñu ko waroon a defar booba léegi ba tax na tamit ñu ngi ñaax autorités nga xam ne ñoo fi nekk ñu jàppaleen balaa nawet bi di ñëw ci diwaan bu ndàngaan abattoir ndaxte dañuy am ay jafe-jafe yu métti ci diwaan boobulee ñu teewlu ki nga xam ne mooy Arona Faye doon responsable des jeunes foofu ci ndàngaan abattoir ci micro ki nga xam ni mooy noa bi yaay ndàngaan bi jeexul boo xoolee liggéeyu tali bi ndàngaan bi bi njëkk a tàmbali ci yeneen boo tali yi waaye boo xoolee yeneen tali yi yëpp pare nañ te moom liggéeyu ndangaan pareegul loolu nag xamaguñ la moo waral ñu ñuy tuutil noonu di ñuy neenal ci anam boobu te bu weesoo loolu am na benn canal boo xamante ne ginnaaw jumaa ji la nekk jumaa ju magi ndangaan bi canal boobu dafa versé yu ci géej ga te gis nañ ni liggéey bi yeggut te loolu bu ko fi nawet bi fekkee ndox mi mën na du wuñeeku dem occuper kër yi te su boobaa dina doy waar moo tax ñuy lancé appel autorités yi nga xamante ne ñoo yor li nga xam ne mooy liggéeyu Promoville ñu fexe réagir nu mu gën a gaawee fexe travaux yi yegg balaay nawet bee ñëw parce que bu ndox mi wuññeekoo rek dina nangu kër yi te su boobaa dina jur musiba boo xamante ne duñ ko fàtte mukk moo tax may lancer appel au nom de la population maire Serigne Mboup aussi mu def tout ba fexe liggéey bi yegg nu mu gën a gaawee parce que loolu la ñuy xaar ci moom waaw foofu instant bi yi moo tax travaux yi moo tax mais dañuy xëy ñu ñëw liggéey fa ñu xëyaat su ñu bàyyi jël bagage yëpp demaat feneen mel ni feneen mooy gën a prioritaire te feneen fu ñuy dooleel yëpp liggéey tali nangaan bi moo njëkk a presque depuis 2017 lañ tàmbali liggéey talu nangaan boobu ba léegi ñu ci ans après liggéey yi mënul fexe ba pare loolu nag vraiment c'est situation déplorable. xeex ak li nga xam ne mu wàllu euh, salté fii ci diwaan bu euh, Kaolack rawatina fi nga xam ne mooy commune bu Kër Madiabel la ñoom moomu lay seen askan boobu lee loolu kese la xeex ba tax na ñu tegoon ab benn site boo xam ne dañ fay déposer li nga xam ne mbalit yi di ko tànnaat baax a baax loolee gëj na xam ne wees na ñi nga point focal foofu ci diwaan bu euh, Kër Madiabel àdduna ci micro ki nga xam ne mooy Noa Biaye. site bu yore mbàllu mbalit bi ñu tuddee ko le site de transfert et de valorisation des déchets mu nekk barab boo xam ne Caritas daf si def plus de quatre-vingts millions aménagé ko pour que dimbale commune Kër Madiabel pour que mbalit mi nga xam ne ni dañ koy ramasser sa mujj ga ñu man di ko tànn di ko trier parce que mbalit or la loolu moo taxoon ñu aménager site nag par défaut tax site bi ñoo xam ne heure bu mbalit mi ñëwee ñoom ñoo war a dal di tànn mbalit mi jël plastique bi def ko à part jël fer bi def ko à part jël li nga xam ne ni mën nañ ko def engrais ñu def ko à ñoo ñu nag ay nit a koy def te nit ñooñu dañ leen war di fay mu war a am aussi benn gérant boo xam ne moom moo war a gérer site bi mais nag comme trieur amul fa gérant amul fa àla kulian rek site il faut que mu taxaw te site boobu tamit pour que mu dox ñi sa bokk dañoo war a fay ñu mën a dajale lu bëri commune bi war na am as tuut muy génnee si gafagaam moo gérer site boobu pour que site bi mën a dox bi mu tëjee léegi war na mat ñetti weer ba ñeenti weer parce que tëj na du benn yoon bi rek la tëj mais tëj na ay yoon yoon njëkk mais bi ñu ñëwee ba élection yi jublu si dañ ko dal di ubbi mais nag juste après élection yi dañ ko dal di arrêté mu mel ni élection yooyu ba léegi dañu jël mbalit moomu di ko xappu ailleurs fu mooy ak site bi dal ñi ko fa doon liggéey dañoo tekki seen ndombo tànk muy trieur yi ñu doon tànn mbalit mi ak ki nga xam ne ni moom moo nekkoon gérant bi parce tamit bu fekkee ne da ngay liggéey di fay ah, soo liggéeyee ay yoon yoon fayuñ su boobaa da ngay tekk sa ndombo tànk bi may yoree rog bi maa ngi woon si plus de 700 abonnés mais bu fekkee ne abonnement yooyu dafa xaw a manqué day indi problème ndax su boobaa la ñuy war a dajale si ab xaalis bu jógee ko si ramassage des déchets yi du mën a bari bëri waaye boo xam ne danañ si mën a fay engins yi recensement général de la population door nañ ko fële ci diwaan bu Mbàkke ci teewaay ki nga xam ne mooy gouverneur boobu lee di jàppale askan bi lee ngir kat ñu mën a liggéey bi la liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne ñooy yeewu foofu ci diwaan bu Mbàkke jàppale agent la ñuy faral di yónnee sur le terrain ngir ñu mën mottali li nga xam ne mooy seen mission reportage bi ak nga xam ne mooy Moustapha Mbaye xayma nit ñi nga xam ne ñooy yeewu fii ci Sénégal nguuru Sénégal taxaw na temm ci amal ko taxit ay ndaje yu am solo doon am ci département yu bëri bëri bokk ci bopp Mbàkke mi nga xam ne gouverneur bi ci boppam moo ko jiite woon na waaw tey li ñu fi indi woon nag dafa bokk ci li ñu naan recensement général de la population et de l'habitat loolu mooy lan mooy tey ji ñi dëkk ci Sénégal gépp yeewoo ci réew mi ak particulièrement it ñan ñoo yeewoo fii nii ci Mbàkke loolu daal moo ñu feen di woon tey léegi nag activité bi dañoo bëgg ñu vulgariser recensement bi cest à def de tele sorte que ñi fi dëkk ñëpp yëg ne recensement am na su ko defee agent yi bu ñu ñëwee seet si leen duñ leen beet ñu mën leen a accueillir voilà laaj leen ay question ñu tontu ci cënam gën a rafetee moo cartographie bi nag moo commencé jamono ji cartographie bi ba mu commencé léegi presque def na deux semaines kër yi xool tundu mbàkke bi yëpp ñaata kër fi ne loolu la ñuy xool kër yiñ ci dëkk kër yiñ ci dëkkut ak xool ñaata njëla ne ci biir kër yi ak laajte as tuut rek ñaata nit a fi ne balaa fi ak fukki weer ñuy delsiwaat di xayma kenn kenn ñu fi yeewoo loolu lañ naan dénombrement mais pour le moment ci cartographie bi lañ toll. Chérif Thiam moom mi nga xam ne moo jiitee service statistique ak démographie fii ci diwaanu Diourbel di wax ne moom daal li muy ragal weesuwul ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ci Touba te yenn saa bu ñuy wax wàllum recensement duñu ci sawar dara Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM xabaar yi bitim réew cant ak ngërëm ñeel na la Moustapha Mbaye foofu la ñuy jaare teewlu ki nga xam ne mooy Cheikh Babacar Dieng ci xibaaru bitim réew yi jaajëf mbokk yéen ñi jaageen jëf ci déglu bi xibaaru bitim réew dañu koy tàmbalee ci réewum Paris la France foofa nag moom ñu ngi dëgmal ay élection législative tànn ña war a toog ca péncum ndaw réew ma jàpp nañu sax date bi fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin loolu organisateur yooyu de élection ci réewum France wax ñi nga xam ne nag ñoom lañu dippee ay républicain ci réewum France mu doon parti boo xam ne ki ko mu ngi tudd Edouard Philippe ñoom donte ne dañoo am défaite ci élection présidentielle yi ñu jógee ndax Emmanuel Macron moo dóor seen candidat bi di Marie Le Pen terewut ñu jàpp ne mën nañoo taxawaat beneen tànk bu gën a dëgër ci élection législative yi nga xam ne war naa am ci réewum France fi léegi fan. xabaar yi bitim réew. France ba tey ak it wàllum politique ñeel élection législative yi foofale parti socialiste bu réew mi moom mun na am du bokk ci jongante député le 12 ak le 19 juin 2022 li ko waral moo di yi ànd ak Jean-Luc Mélenchon dañoo jàpp ne ñi ñu duppee ay droite dañ doon négocier ni ñu demee ci élection yi ànd ak waa gauche defandoo benn tànk waxtaan yooyu la nga xam ne demul kër ngóor dikkagul mbay laar moo tax ñu jàpp ne mun naa am bu ñu ca noppee ba tënk dara waa dem ci ay élection ci ni mu waree dana doon lu jafe ci waa parti socialiste bu réewum France moo tax ñu ne daal bokk ci yooyu la élection mun naa am néganduku lay doon ci ñoom. xabaar capital ba di dëkk bi ñu wax Pékin ñoom dañoo gën a dangal charte yi nga xam ne tegoon nañu ko nguur ni nit ñi di def ba fegu ci mbasum coronavirus dañu ay nit yu bëri yi dajaloo kenn dugg fenn yi te takkoo masque testu Covid it lu ñu obligé la moo xam diggante dëkk dëkk wala nga bëgg dugg ci réew ma chinois yi nag dañoo jël dogal bi ngir bëgg mucc ci jàngoro ji nga xam ne moo toppoon ci Covid ñu koy wax omicron dogal bi nag waa réewum Chine jël mu nga gën a taree capital ba di Pékin. xabaar bitim réew yi jàngoro ba tey waaye giliyoon ci Afrique ña nga ca RDC bu ñu sukkandikoo nag ci organisation mondiale de la santé di OMS ñoom dañoo jàpp ne virusu Ebola bi mën na am fi lekki fanu mu tasaaroo ci dëkk yu bëri ndax Congo da cee am ci rawatina dëkkam bi ñuy wax Mbandaka na fa jàngoro ji dawee dafa ëpp doole lool li gën a tiital OMS nag moo di ne nit yaa nga fay dugg di génn moo xam ci oto wala ci ay avion ñu njoxtu ne kon su kilifay RDC Congo xoolut seen jàngoroy Ebola fépp ci àdduna bi ci fan yi rawatina nag dama dégg gi ci wàllum jaww ji nga xam ne Congo digganteem ak yeneen réew yi ci Afrique dafa dox lool. xabaar yi bitim jàngoro ba tey ci Afrique OMS moom dafa jàpp ne feebar bi ñuy wax rougeole nga xam ne moo di jàngoro ji jàpp tout tànk yi ñaari at yi daal moom jàpp ren di ñetteelu at bi dañoo seetlu ne dafa gën a bëri li ko sabab nag organisation mondiale de santé wax ko moo di ne 2020 ak 2021 nit ñi dañoo jëloon jëloon seen doole yëpp def ko ci xeex Covid 19 ba fàtte ñàkk gune yi ndaw yi ci jàngoro jooju nga xam ne daf leen di lompañ loo OMS ne lii mooy tekkee jàngoro yi sonalu gune yi bari lool ci réewu Afrique yi. xabaar yi bitim réew. yi jeex na tàkk yu tey yi fii leen ci yem. xabaaru tàggat jërëjëf euh, Cheikh Babacar Dieng xibaaru tàggat yaram la ñuy teewlu ak ki nga xam ne mooy Serigne Moussa Kane. Aline Badara maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu ko dooree ak làmb ñaar fukkali édition beeg ñaar drapeau du chef de l' état fukki sélection ak ñeent nag ñoo fas teew fii ci Diourbel compétition nag dina door a àjjuma ci stade Elimanel Fall ak compétition par équipe bi nag laata loolu nag des na amal alxames tey ji visite médicale bi tirage au sort li nga xamante ni mooy wàllum pesage bi Kaolack drapeau chef de l'état ba léegi Kaolack ñu ci wàccaay li kii di Papa Mademba bi tey directeur général bu Senelec moom nag daal dinay taxaw bu baax a baax ñi nga xamante ñoom ñoo fas yéene teewal Kaolack fii ci njaareem ci drapeau chef de l'état bi équipe bi nag kii di Papa Demba bi tey daal dina indi ndimbalam ci wàllu koppar ak matériel ndaje bi Cheikh Ahmed Tidiane Diagne moo ko teewe woon comité régional de lutte la région de Kaolack war a bi fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeru ko mai bi ñu nekk fële ci région bu Diourbel li nu mel nag tax na ki nga xamante ne moom mooy directeur général bu Senelec nekk tamit njiitu mouvement CREM di Pape Demba bi tey dimbali leen comme ni mu ko defee woon daaw Insa Diouf moo yor kàddu mouvement CREM bi nga xamante ne Pape Demba bi tey moo ko jiite. maay yu ñuy porté ak blouson yu ñuy porté fay jëmmal pour ñu wone ne yow bokk nga ci Kaolack ñi nga xam ne tey dañ leen di tiitaroo fépp foo xam ne askan wi soxla nañ fa parrainage te toujours présent je tey ñu dajale fi pour jébbal ko CRG bi gannaaw bañ leen jëlee en charge préfinancement mbapat bi nga xam ne moo war a jël en seeni problème ñu indi aussi li nga xam ne mooy may yi jëf ji rafet na bu ñu sukkandekoo ci président CRG de lutte bu diwaanu Kaolack Maam fay Faye mu ne nag da leen a fekk sax ci ay jafe-jafe yoo xamante ne xamuñu woon fan la ñu koy yuuxoo duggule daaw fanweeri survêtement la ñu jox Pape Demba Biteye soutient le CRG de Kaolack heure bu ñu bëggee organiser mbapat moom moo koy préfinance un gala loo xam ne da lay dikkee deux millions huit ndam bi nag ñu ngi koy tabax yàgg nañ ko tabax depuis daaw lañ ko commencé tabax ñu def benn évaluation objective ba macha allah jàpp nañ ne Sénégal tey amul benn région bu gën équipe Kaolack autorité politique ak administrative yi nekk kaw Kaolack war nañ cee jàpp te ba fi may wax nii autorité yooyu kenn jàppagu ci ñi ci jàpp kenn ki Thierno Kosso Diané la ñaar ñi ay nitu làmb lañ ñi ñun muy Moussa Diama ak Ibou Bambara mais à part deux cent mille francs yi nga xam ne moom lañ jot ci ñooñu lañ doon doxe ba léegi te jeex na mooy lañ jële woon ci gala Pape Demba bi tey te mu toll woon ci un million cent quinze ca des ci lañ leen regroupé woon jeex na tàkk te amul kenn ci ñoom koo xam ne mën na taxaw tey ne binduñu la leer ndege mi nu ñu ko doon amal ca quartier bi mu dëkk moom Pape Demba bi tey ci teewaayu kilifa yu takkoo takku ci diwaanu Kaolack ay meeru Ndiaye moo jiite seen lekk bi nekk ci diggu réew mi Pape Demba bi tey fa mu nekkoon ba léegi ma nga fa yemul ci wàllu sport ci domaine bi nga xam ne ci la nekk muy wàllu électricité mu am ci Pastef ci li nga xam ne chef de l'État moom la bëgg ci li ñuy wax accès universel programme yi nga xam ne mi ngi biir Senelec directeur général yore ko di ko jëmmal wane ne ne am na nañ yaakaar ne dinañ agsi foofu. Aymerou Ndiaye mi ko teewaloon ci bés bi moom directeur général bu Senelec nee na it wàllu ko koppar bi nga xamante ne jafe-jafe la fi mu ne ci CRG bu Kaolack dina leen ci jàppale laata ñoo dem ca diwaan bu Diourbel. ñu waxtaanee wàllum football demi-finale retour Ligue des champions démb nag Real Madrid dafa daan ki nga xamante ne moom mooy Manchester City ñetti bal ci benn daal di qualifié final Real Madrid nag fekki na Liverpool ci final bi nga xamante ne moo fas yéene am fukki fan ak juróom-ñaar ca stade bu France loolu nag mooy daje bi nga xamante ni dina amaat ci diggante Sadio Mané ak merengue ñaar fukki fa nak juróom-ñett gi ñu dëgg man lay doon mu war a doon fukkeelu final ak juróom-ñaar bu Ligue des champions bu Real Madrid ñu war ko fubale foofu ca stade bu France. ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy mooy Europa League demi-finale retour tey bu juróom-ñaari waxtu jotee Glasgow Rangers mooy laaleeg Leipzig ca ale ba nag benn bal ci dara la woon ci faveur allemand yi ak West Ham ca ale ba nag ñaari bal ci benn la woon Ligue conférence demi-finale retour Roma mooy laal ak Leicester ca ale ba benn ak benn la ñu def Marseille dina ak Feyenoord ca ale ba nag français yi dañoo ñàkkoon ñaari bal ci ñett ñu waxtaane ñaar fukki édition bekk ñeent def Olympics Sénégal nag démb dafa daan ñi di waa ñeenti bal ci euh, benn ginnaaw bi nga xamante ni nag seen génn gu njëkk dañ ci am ab match nul ndam demul ndam euh, dikkul ci li nga xamante ni moom mooy championnat Brésil ñu jagleel ko ñi nga xamante ni mooy ñu tax ñi coupe du Sénégal trente-deuxième finale dënn wàcc na foofu ca Tambacounda ASC Pikine ñii di waa Coton Sport bu Tamba ñoo leen daan démb daal leen génne ci po mi benn bal ci dara ma ngoog Alioune Badara gannaaw ba la ñaanee lekk ndaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf foofu la ñuy jaaree teewlu li nga xam ne mooy yéen kaay yi bés bile ak ki nga xam ne mooy El Hadj si Cissé. halaan ba tàmbali na diggante Barthélemy Diaz ak njiiti réew mi Macky Sall allah info yéene kaay moo ñu ko xamal ginnaaw bu ko makki Sall bëgg a wàccee ca bopp mairie bu Ndakaaru moom Barthélemy Diaz tey ci ngoon fa fas yéen tontu tontu yi saf sàpp Macky Sall la were journal mel ni ku naan Barthélemy Diaz bul yàq sa ngelaw gémmiñ Macky Sall mënut laa wàccee la tax mënut ko wàccee yéen a leeral Abbas Fall di ko topp ca Barthélemy Diaz ca maire bu Ndakaaru mel ni ku naan ko yéen wax dëgg gis ngeen Macky Sall mii faa foog na fay gént moom kenn la mënta wàccee li mooy moom la Sénégal yi nar a wàccee kon na lijjanti loolu ay jël Guy Marius Sagna capitaine rek ñu naan fañ lay wàccee loolu di waxu caaxaan-caaxaan Birahim Seck forum civil feelu ko ba tey ci Sud Quotidien ne moom Macky Sall suñ sañ-sañ nekk njiit ci ñaari kër yooyu te Macky ma ngi leen fa bàyyi loolu mooy salfaañe luwaa bi bala ngaa digle cangaay nag fa ngay sangu Sidiya Ndiaye secrétaire général bu FGTS ne pourtant man mii de maa laaj Macky Sall wax moom ci wàll wi ni mel Moussa Sarr yor kaddu LD ne hëy faa bëgg ngeen xam ne Macky li wax nii nekkut fay tëkku Barthélemy Diaz moom fay fàttali rek ngir gaa yi respecté loi bi docteur Malick Diop bu AFP na ko loolu sax lu la fàttali surtout ñi nga xam sonal boppam rek enquête yéene kaay na man kay fay laajte ndax Barthélemy Dias loolu mu def noonu jël Guy Marius Sagna ak capitaine Touré est loolu njuumte la ci doxalinu maire wala du njuumte Ibra Dieng xam-xamu ci wàll wi ma ngi koy leeral ci yéene kaay ba yéene kaay bi di turbine ne ko waxu dëgg wax la ca gannaaw dëgg Macky fa xam lu ko doy sëkk ay mbir garaaw yoo xamante ne ay farandorom ñoo ko def ci réew mi mu war koo lijjanti lijjantiwul leen naan sénégalais ya fañ ko këlëmti ko waa e ñoo def ay rapport ci ñoo xam ne jege ñaa la ñu sàcc alalu sénégalais yi def tooxi doona mbir yu garaaw au lieu Macky Sall dàq leen wàccee leen a joxaat yeneen poste gën leen dooleel loolu foog nga ne ci réew turbine yéen kaay ne téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards moom lañ yore ci bor yéen bi mel ni ku daan wax dëgg yàlla Barthélemy Dias fa fekk ñaar ñoo xam ne fañ leen a di jël seen xalal ji farak Macky Sall na leen Macky lijjanti bés bi yéene kaay ne man daal faa xam ne diggante Macky Sall moom ak Barthélemy Dias juboo wala déggoo intaha c'est mën a tuta nekk ndax tey bu ko Barthélemy tontoo hé may ragal fay fatt ay noppam de léeg si ko ne lu ëpp téeméer ak fukk ñaar ci ay milliards moom la ñu nemmeeku ci ay marché gré à gré yaa neex ci marché public yi ci atum 2021 bi loolu na ko Macky lijjanti la Macky lijjanti nag ndax loolu ko itteel ba ak nu déposé seen parrainage ba léeg si ko yéen a kaay ñu ko xamal yeewi askan wi ñoom déposé nañ démbu seen caution bi ba pare ña ngay waajal seen investiture yi waa wàllu Sénégal fexe nañ ba ànd ak ndax fa ñoo bëggoon a ànd ak waa yeewi sottiwut direct news ne benn bokk yaakaar kay seen parrainage bi xam nga ñaata la un million trois cent Matam Podor Fatick Kaolack Kaffrine jiitu de réew mi yéen a kaay na li ñu nemmeeku nag mooy na daaf carte d'identité yi fañ koo bi nga xam ne meeram ba Bambey ka xàndoon ak moom ak waa yeewi ya bàyyi leen ko laajaloo ci xam mu ñoo wor te wor lu bon la deful lu may wor nag li tax mu wor ñi ak ni yëfee demee na xaw ma ci dara la mu xam ba wax ñu ko moom la Soleil yéene kaay mooy Macky Sall la mu digge woon def na ko de salaire ñi nekk ci fonction publique bi xam nga foo xam ne fa ko yokk yëf ya tàmbali na benn fan ci weeru mai bii téeméer ñaar fukki milliards moo nar a yokk nag ci salaire yi loolu lu baax la ci fonctionnaire yi la baax ca Senelec mooy kër gaa ngay dox bénéfice a yokk yow seetal benn milliard lañ amoon bénéfice waaye 2021 bi fanweer ak juróom-ñetti milliards am bénéfice général bu Sutelec moo ko wax ci lii yéene kaay l'observateur moom di ñu xamal na njiitiram Macky Sall fa génnee milliards yu bëri ngir jëndal soldaar si ay ngàndaay fa yokk seen doole lépp ngir kaaraange réew mi réewum Sénégal nag ku am lu ëpp juróom benn fukkat ak juróom doo dem aji Makka ren aay waa Arabie Saoudite ñoo joxe dogal boobu 65 ans jëm kaw fañ leen a teree dem Makka ba pare billet Makka bi ren fa cher ba jéggi dayo 4 millions 200 la laas yéene kaay kaay na ko faala ci yokkal xam nga ñaata sénégalais leer leneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne Macky Sall door na rëbbu activiste yi fi mu toll nii activiste bañkat yi yi nekk ci réseaux sociaux di wax Macky ngi leen di lukkat dañu ngi leen di jàpp fi mu toll nii Walfadjri yéen kaay ñu ko xamal libération dëggal ko na ko am na ñetti activiste yoo xam ne teg nañ leen loxo te diwaanu Ndar ak diwaanu Vélingara Alioune Thiam bu dee diwaanu Vélingara moom Amadou Balde ak Youssouf Thiané gendarmerie teg nañ leen loxo ba ña nga ca kaso ga de fa ñoo bindoon ab article ci urbanisme bu Vélingara ñu porté leen plainte tàggat yaram ay waay waay xanaa léegi nangu na Real Madrid mooy équipe bu mag a mag bi non lu kenn yaakaarutoon quatre-vingt-dixième minute City mbuqi la 1 ci groupe WhatsApp boo xam ne fa bokk te ña bokk mat na ñetti junne doomu aadama te ba koy dugal tayit ko yëfee nag tasaaroona yéene kaay bi ne lii mooy danger bi nekk ci réseaux sociaux yi <laughs> waa ma ne yàqu nga ni xaw a géy ndax fi mu nii ña nekk ca groupe ba ku ko jël envoyé ko keneen yow doo ko xam dee leen xool bu baax bala ngeen a envoyé te li gën a wóor sax mooy gis nga sa photo yaramu neen ko publié wut ñoo xam ne am nañ xarañte bu ñu duggee sa téléphone jël ko su ko defee nga yàqu di def lu bon waroo ko filmer waxuma la di ko garder ku ko ci bàyyi wudde doo jóg mukk ci woy yàqu naa cant ak ngërëm ñeen la El Hadji Omar foofu la ñuy jaare mbokk yi buur yi jotaayu xibaar ko du sekkene mi moo nekkoon ci euh, li nga xam ne mooy xarale gi di Alioune Badara Diop ci kàddu gi mbokk yi xarit yi ñu leen ñaan a kenn daay jaam